li ma ci amee li ma ci amee. rus naa rus naa ci àdduna. wax loo xam ne du wéru xamu tax. li bootu sama gannaaw ci ay nit. man du ma tariyax. man muqaddamu Seydi Ahmad Tijaani la. waaw. di joxe a Tijaani di tarbiya. Hmm. waaye kàttan moom li ma ci amee. maa ngi jox rendez-vous noonu ku jege na ñëw noonu. ku jege sa Sénégal. ko xam ne mën ngaa paas ñëw àndal ak ndaw si ngeen fanaan yéen ñaar bu ngeen si déggee vingt heures laa la koy jox vingt et une heures fonctionnement bi commencé te dootu jeex mukk na dëgg sëriñ loolu mosuma gis ci xeetu secret te man maa ngi wax ni ci àdduna wërngal këpp. góor ak jigéen mag ndaw fu sëriñ ne ci réew mi Sénégal gii. fukki région yi ñeent yi fu fa sëriñ nekk. garab yi kàttan ngi ma amee amoo ko. كل من جور كو من جور فو من دك فو من جانجي فو كو من اوتي لانسنا الدفي اندي ليغا ام اندي ليما ما جوخ ليغا ما لا واخ دي ليما تي امي موم كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am bul fàttee cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën koo njëkk a am arzam hmm. dama ko am hmm. dama mbappat bi de oto yi ma amoon yëpp joxe naa ko ngir turu lu ma denc rek jox naa ko pour xam-xam bu wér boo xam ne kenn du ko sik sàkk hmm. kon loolu ngay wax jaaru boobu maa ngi ci invité adduna yëpp dama ko taxa wax. Mm-hmm. danaa ci dimbalanteeg mbindee fi. ci koo xam ne nii wax na ceeg man. Mm-hmm. danaa ko dimbale te nag. Mm-hmm. danaa ñaan yàlla nga nekk sama seede ku ma koy jox danaa la wax jox naa ko diw mu ngi dëkk sàngam. nga nga date date bi ñu set dem déwén nga xool. ayco numéro téléphone Cheikh Baye Fall Al Mourchid 77 la 224 40 53 wala nga woote 77 910 77 50 mais Cheikh bi garabu néew kattan. am na ñoo xamante ni dañuy dem dëbbu doom yi nekk pharmacie di ko ci def nga naan ko sa bopp métti say bët xonq ku sa bopp métti say bët xonq yaakaar naa mën ngaa sëy sax 10 heures de temps ndax aw métti mënta ànd ak plaisir te say plaisir la. nga ne ma sëy bi ma ci yor lu ñuy naan la boo ko jëfandikoo da sëy ba kontaan te lépp naturel la amul benn effet secondaire te day fajaate dégg naa yor nga ci garab bu garaaw boo xamante ni ay marabu tradipraticien dañ koy jëfandikoo. ku nekk Sénégal. Mm-hmm. nga xam fi ma dëkk. yow jigéen bi sa jëkkër am problème boobu wala yow ndaw yow góor ki nga sentir ko. man de maa ngi lay ñaan. soo ko manee nga ñëw suma kër. nga fanaan fa benn guddi man ma jox la ko yéen ñaar. waaw nga naan ko vingt heures vingt et une heures ngeen tëj buntu bi li ma ci amee. li ma ci amee. rus naa rus naa ci àdduna. wax loo xam ne du wéru xam nga tax li bootu sama gannaaw ci ay nit man du ma tariix man muqaddamu Seydi Ahmada Tidiane la waaw di joxe tariixa Tidiane di tarbiya waaye kattan moom li ma ci amee ma ngi jox rendez-vous noonu ku jegee na ñëw noonu ku jege Sénégal. koo xam ne mën ngaa paas ñëw àndal ak ndaw si ngeen fanaan yéen ñaar bu ngeen si déggee vingt heures laa la koy jox vingt et une fonctionnement bi commencé te dootu jeex mukk. am na audio bu ma ci euh, dégg sànq doon ko déglu audio euh, xam naa ne boo ko nangoo nag boo ñu ko mayee loolu dañ ko war déglu parce que loolu tamit lu xorom la waa ji. <laughs> waa ji nee na moom mënut a julli ndax moom a <laughs> a julli ndax mënatut a tranquillité. lu waaw yooyu waaw dootu toog ndax buy julli ak buy lépp dootu toog te wax dëgg wax na dëgg sëriñ loolu mosuma gis ci xeetu secret te man maa ngi wax ni ci àdduna wërngal këpp góor ak jigéen mag ak ndaw fu sëriñ nekk ci réew mi Sénégal gi fukki yi ñeent yi fu fu nekk garab yi kàttan ngi ma amee amoo ko ku la mën a jur koo mën a jur foo mën a dëkk foo mën a jàngee foo ko mën a utee lancé na la defi indi li nga am ma indi li ma am ma jox la nga ma sëriñ laa wax de li ma ci amee moom sëriñ amul ko ku ko mën a jur nay mag ngay ndaw paa yi am nañ ci wàll xale yi am nañ ci wàll ndax dëkk bi léegi xale yi fa nañ ba amatuñ kàttan kon képp ku toog rek lii ñëwal jël ko yow yaa ko moom li ma ci amee sëriñ masu gis boutique biotique en partenariat avec Muslim moo présente di présenter seen gamme de produits 100 bio 100 naturel sans effet secondaire pour un traitement définitif contre l'éjaculation précoce góor ñi nga éjaculation précoce moo leen sonal wala dañoo am faiblesse sexuelle maanaam dañoo néew kàttan ñu bëgg ci un traitement définitif ou wala sax dañoo am problème azoospermie maanaam seen man yiw dafa woyof un sperme dafa woyof ñu bëgg ko renforcer fortifier ko wala sax euh, góor ñi nga xam ne dañoo yor ay awra yu gàtt ñu bëgg ko yokk am nañ si pommade bu hyper efficace am nañu aussi un lubrifiant très efficace 100% bio 100% naturel pour neexal say baax lool si jigéen ñi góor ñi ñoo koy utiliser. amnañu aussi une pommade ak huile loo xamné c'est très efficace pour jigéen ñi nga xam bëgg euh, augmenter seeni sein ak jigéen yi nga xamné dañu bëgg yok seni fesses ak seni hanches amnañu aussi un traitement hyper efficace pour jigéen ñi nga xam ne am ay vergetures manam dañu am ay rew ñu bëgg mu dëñ taxaliko ak ñom am nañ aussi un traitement hyper efficace pour ñi nga xamné ne dañoo bëgg perdre sen poids mo xam sa biir mo ngand nga bëgg mu wàññeeku wala sa poids nga bëgg mu wàññeeku am nañ aussi une gamme neexal say hyper efficace pour jigéen ñi nga xamné dañoo bëgg téllu xalé manam ñi nga xamné dañoo bëgg resert vaginal wala dañoo am perte blanche wala dañoo am une mauvaise odeur vaginale lépp da koy dindi traité ko delloo la kom bi nga nekkee jànq nañu aussi lem pur cent pour cent bio cent pour cent naturel képp ku si bëgg mën nga ñu contacter si 77 982 98 82 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقرن في بيوت مريم تبوأ